ku ne xam na ni département Mbacké léegi dafa bokk si département yi nga xam ne si moo fi ëpp ay nit mën na ni léegi Sénégal Mbacké mooy département bi ëpp ay nit ku wax département bi ëpp ay nit nag da nga xam ni kon dina bokk si ñi ëpp mbalit moo tax suuru tabaski e, dëkk bi dafay tax moo tax tey ñu génnee sunu éléments yi tey mën na ni lu tollook e, téeméeri élément ak ñaar fukk génne nañ ko pour ñu seetal li nga xam si mooy dëkk bi muy e, ñaari tali yi nga xam si ñoo jëm Mbacké ak jumaa ji ak li war corniche bi yëpp. dugg nañ fi nga xam si mooy daral yi tamit fi nga xam si te fi la jaaykati xar yi ñëwoon teg fi li nga xam si mooy seen xar yi parce que ku ne xam na ne jaaykat yi e, dëkk Touba ni mu toll fépp ay daral lay doon wala wala place yu bari ay daral lañ koy def mais heure bi nga xam si si leen di jeexal wala si leen ñu retourné e, si leen ñu delluwaat seeni dëkk dañuy sonn ba nga xam si duñ mën a ramasser mbalin mi daanaka noonu la noonu lañ ko fi bàyyee loolu moo waral tey ñu xëy dugg si daral yi ak yëpp. ngir balewaat foofu noonu ba dëkk bi aw cet ga fi nekkoon mu delluwaat foofu. marché Ocass aussi ku ko wax xam ni béréb la boo xam ne si bu ni bu ni bu boo xam si njaay ma bu bis bu bis it amut sax day xaw a day xaw a xumb rawatina bu it amee te lii dar dara li moo leen di dal moment bi ñu fay jógee daf leen di sonal malgré am nan fa ñaari kees poli benn ak eh, benn benn tës tës boo xam si dafay taxaw mais du tee suba incha fa fas yéene nañ continuer liggéey bi. Eh, comme ni ñu ko defee tey ji éléments yi génnaat oto yi ñëwaat même euh, sun pelle mécanique bi nga xam ne mi ngi fi ak camion yi ñu dugal leen marché Ocass ba nga xam ci bépp depp boo xam ci mi ngi foofu den ko mën a tolli ba marché Ocass amaat xar karam bi mu amoon